ay ay bésu néew dox suñu diggante ak ubbite école gi jamono ji waajuru ndongo yu bëri nekk ci wattaay mi atum ren mi nag boo moytuwul dina metti ci ñoom sabab gi nag moo di mbas mi nga xam ne nag ganasi na réewum Sénégal ba tax na ñu bari ci ñoom di am ay jafe-jafe ngir toppatoo seen doom ci wàllu jumtukaay yi nga xam ne moo jëm ci wàllu njàng mi. waaw jamono ji moom métti na métti goo xam ni moom maanaam fépp la laal maanaam ci ñun commerçant yi nga xam ne nii am nañ ay rakk. am nañ ay jarbaat yu war a jàng te it ñun ñoo leen war a jox li ñu war a demee école te jamono ji gis nga ni mu mel crise bi moom fépp la laal marché bee fépp daal foo wax laal rek moom wax dëgg yàlla métti na ci côté yëpp nag. covid-19 moom wax dëgg yàlla ren laal na marché bi trop mais nag sant yàlla rek ndaxte eh, moom eh, dem wu dem daa demee waaye daal moom eh, ñu ngi sant bu baax daal. ñu bëri ci ñoom di jàmbat jafe-jafe gi nga xam ne daanaka gaar na leen rawatina nag li nga xam ne moo di yooyali jumtukaay nga xam ne jamono ji dañu ko yokk lool ci marché bi. metti na torop sax kay fii na ni metti na lool ndax bagage yi seer na xaalis amul yaa ngi yor ñetti élèves ba ñeent yaa ngi man fi mu doon ni weer wu dee rek li may fay dafa bari man yor naa ñetti élèves te ñi Mbàkke la ñuy jànge ji ngay paas dem ak ñëw am na ci ko xam ne Belel lay jànge ji ngay paas dafay loolu lépp dañ koy def te dëkk bi daal doy na waar moom. waaw metti na moom mais sant yàlla rek sant ndax bëgg nañ suñuy xale jàng tamit il faut nu ti demee rek ñu jënd ko daal mhm. damaa ay xale ñëw di leen jënd sil si fourniture yi waaye daal sant yàlla rek nañ ko gën a man daal. nañ joxe tey laaj wekket rek fi dëkk sëñ Bàmba la joxe tey laaj wekket rek. loolu nag sabab fem gii nga xam ne gouvernement bu Sénégal ñi bëgg nañu ko muy ubbi tey jàng tey waajur ndongo yi ne loolee gëmuñu mu mën a nekk ndaxte jamono ji seen i gafaka dara nekku ci ngir ñu mën a yóbbu seen i doom ci bërëbu jàngukaay yi. gouvernement bi moom comme moom moo yor lépp. tey daanaka jamono ji moom xëy na suñu lépp suñ borom lañ koy diis waaye nag am na ci loo xam ne nii moom ci moom la aaju moom moo war a moo ñu war a dimbali parents d'élèves yi bu baax a baax. gouvernement bi daal lu ñu mën a dimbali ci affaire yi moom nañ ko dimbali bu soobee yàlla nañ ci dimbali bu baax corona bi daal laal na ñëpp moom ubbite gi moom metti na lool nag te dara xewagul nag commencé na waaye metti lool metti na lool wax dëgg yàlla. Ah, mu gën leen a jàppale rek moom yëf yi metti na lool te euh, wax dëgg yàlla bëri na ñoo xam ni seen doole demewul noonu xëy na li ñu doon mën duñ ko mën. daal jar na euh, gouvernement bi mu gëstu leen daal. ah bi de moom fi mu dañoo nekk seen bopp ñun nag fu mu nekk jeunesse bi moom ku si am fulla rek nga nekk si li nga war a nekk bañ a xaar état nekk si nga war a nekk rek ku xaar état moom doo àgg fi nga bëgg a dem. ñeneen ñuy jànkonteel benn nub jafe-jafe muy ñi nga xam ne rek ñooy jaay jumtukaay yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu njàng mi ñu ne yooyee la waajuru ndongo bu ñu ko méngaleeg atum daaw mi ren jii daal daanaka seenum njaay dafa tagga témbe par rapport kii sanitaire bi de boo ko comparé ak euh, l'année passée c'est un peu difficile quoi parce que l'année passée boo ñëwee heure bi daan na fekk tey tous les matériels d'école sont disponibles quoi mais actuellement on a constaté que ni y a beaucoup de choses qui manquent quoi bon on a constaté que ni c'est à dire des moyens de transport comme ñun on fait import export suñu bagage yu bari aussi extérieur lay jógee. depuis un moment da ngay am difficulté pour voyager tamit aussi kon nag bagage yu bëri tamit aussi day empêché pour mu mën a dugg si quoi. waaw ñu ngi ñëw tuuti tuuti rek ñëwagu ni mu daa ñëwee nag moom mais ñu ngi euh, commencé di ñëwee ndànk-ndànk rek. waaw boo ko méngaleeg at yii yàlla par rapport daal euh, ren xaw naa kii tuuti rek mais euh, daal sant yàlla daal ndaxte gaaruñu dong ñëpp la gaar. anam ñàkk xaalis rek ñàkk xaalis. xale yaa ngi waaj ñu ngi soxla ay dàll ñu ngi soxla ay bagage ñu ngi soxla lépp te gis nga ñoo ngi ne sëñ Njaay mi ne toog jaay ñu dara mu metti lool buñ ci mënoon a jàppale daal mu jël moom ak yombal bagage yi. waaw ah, ubbi école bi moom wax dëgg yàlla ni ñu ko gisee nii moom xam naa metti lool lool lool ci ñun par rapport ak ni mu doon demee ak crise bi Covid 19 bi laal laal na ci bu baax a baax a baax comme bagage yi ñu doon ñëwee ñëwewul noonu en plus que bagage léegi pour nga. waxaale élève bi day métti trop trop trop parce que yow li nga daan jënd dafa yokk te ñoom mënuñoo pour ñu yokk li ñu doon jënd problème lay doon parce que li ñu daan indi rek la indi te forcément da leen jaay na trop trop trop. instant benn benn ñaar ñetti ñooy ñëw jënd te yu si bëri tamit aussi ñun fii boo seetloo da ko doon jaay en gros quoi da ngay jëw nga jaay benn client boo xamante ni da nga koy jaay moo dem jaayiwaat mais tey jii boo seetloo ku si doon jënd tey deux cent cent la lay indil. te loolu boo ko seetloo tamit les autres années da nga doon jaay nit cent bu déwénee mu gis ni évolution am na mu ñëw jënd deux cent mais boo seetloo année bii di nga xam ni xaw na am un peu diminution quoi. wax dëgg yàlla parents d'élèves fi moom instant yi gisaguñu leen bu baax parce que heure bi fii daf daan xat c'est normal fii heure bi boo ñëwee war moon am temps pour wax ak yow ma waroon ñu fekk ma ma xat ba yi pour ma wax problème lay mel ni euh, maman yi nii dañ daan trop. waaw ànd ak yooyu la jafe-jafe yëpp la ñuy sàkku ñoom waajuru ndongo yi moo di nguurug Sénégal gën leen a jàppale bu ko defee ñu toppatoo ñi nga xam ne rek moom moo di seen ndongo yi ñu mën a am atum njàng mu mu mucc ayib